ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média jàkkaarloo bi ñu am mbégte ànd ceek euh, tey jii Souleymane Diallo moom moo jiite SELS euh, bu ñu nee SELS di syndicat jàngalekat yi ngeen xam ni grève gi amoon euh, àllarba alxames ba marche tamit euh, jot cee am euh, la ñuy njëkk waxtaanee laata ñuy dem ci ñaareeli pàcc bi waxtaan euh, goo xam ni it dinañ ko tàmbalee léegi léegi nii Moustapha Diakhaté mi ñu dàqee ci APR mu ne tey la ca gën a bokk ba créé moom man koo taxawu suñu APR. Euh, ñu commencé tour de tour de table bi donc tuuti politique boobu mos ci rek te bañ ci sori euh, dem ci grève enseignants yi euh, laata ñuy dem ci deuxième thème bi Charles yow comme yaa mujj yegg si tey yow laay nuyu. très rapidement lay fay bu baax a baax a baax ah. di fay sumay mbokk suñuy mbokk yi suñu invité ak suñuy téléspectateurs yi di la dellu kaddu. foo nekkoon. C'est l'anniversaire de ma fille Et permets-moi de fêter l'anniversaire de ma fille. Ah, voilà. Il fallait... de me faire beau pour elle. Vraiment. Et de dire merci à Maradien. Je te remercie vraiment grand. Joyeux anniversaire à notre fille. Oui, Alors, Moustapha, Diakh... Moustapha Diakhaté, actuellement secrétariat exécutif national bu APR ñu ngi réunir ñu ngi salle des banquets bu palais de la République. Ah. xam naa ni moom tama du ko ëppi buum. alors il est exclu na maa ngi koo noo ci noo ko gisee. lu lu ko gis mooy que il a il a réussi son coup de maître. Euh, parce que information bu yu rëy la jox premièrement par rapport à 2024 am na loo xamante ne léegi leer na leer leeral na ko mooy que 2024 faaw mu am benn candidat boo hmm. xamante ne issu euh, de l'APR bu fekkante pas APR da si liggéey. wala issu de la majorité présidentielle wala après wala wala mu dem opposition côté boobu affaire bi leer na beneen affaire boo xamante ne quand même boole na président ak sénégalais yi ne ko foog taxaw taxawaay bu leer kooku réussir na ko mais pour man dafa am loo xamante ne au-delà de toutes les météo politiques mhm. am na lu mu def et qui rentre dans la vie normale suñuy parti suñuy partie bu fekkente ne moom da ngay def courant contribution ñu ànd mhm. mais bu ne leneen la bu nekkul pensée unique dootul dem et defe naa loolu mooy le grand problème de notre de suñuy parti politique ci kaw loolu mais balaa nga koy dàq foog nga am légitimité mm-hmm. mais ñu ko dàq ban légitimité lañu am ci biir parti bi ban congrès la ñu def ba ñu légitime y a yoo xamante ne faaw ñu posé ko parce que am na benn précédent boo xamante ne amoon na fii en France maa ngi si doon waxtaan sànq ak kenn moo doon Marie la Pen bu muy dàq papam mm-hmm. mais juge bi dafa tourné ne ko déet ba ngeen di def korom bi di invité moom invité wu leen ko donc mënu leen ko dàq dafa am loo xamante ne il faut ñu toog avant qu'ils ont réussi par la suite kooku am na mais faw ñu toog suñuy démocratie balaa ñu koy wax nii di ko partager mais fu ñu ko waree def foofu ñu commencé par mhm. respecter loolu loolu doon loolu moo manqué te pour man Moustapha Diakhaté a réussi un bon coup de maître et dafa mel ni Charles pose le problème de la démocratie à l'intérieur des partis démocratie interne waaw mais loolu mooy góom nga xamante ne moom mooy moom mooy dal Sénégalais yi moom la ñuy jànkonteel bu ñu demee ba war a jiite réew mi parce que parce que les partis sont généralement des propriétés individuelles mm. ay entreprise la yoo xamante ne mm. benn nit moo koy moom mooy buum di bumi Moustapha si euh, plutôt Moustapha Diakhaté nag lu ci nit ñi mënti wax war nañ comprendre ni que c'est quelqu'un qui a une liberté de ton mm. liberté de ton boobu dañ ko soxla pour fair nourrir la démocratie à l'interne tu as failli faire un lapsus révélateur tu as parlé de Moustapha Cissé Lo. non oui après mais j'ai la question lu tax lii dal Moustapha Diakhaté te dalul Cissé Lo. Ah, oui c'est-à-dire qui n'a pas fait moins. ils faire dans le deal et la négociation. Mm. c'est pas le caractère de Moustapha Diakhaté. Mm. Moustapha Diakhaté c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. bu ñu delloowee tuuti ci ginnaaw su Wade bi bi mu xamee ni Karim jeune la Ablaye Wade buggul ko wax Karim dara. il est venu il a dit defal nga ma lu nekk ci àdduna donc on peut comprendre que du nit boo xamante ne il reste quelque part pour des pour pour des inter pour pour des intérêts matériels c'est quelqu'un qui a des convictions c'est quelqu'un qui a une liberté de ton et qui comprend qu'en politique il n'y a que la liberté de ton qui vaut et ça c'est très important alors Pape Djibril su suñu mbokk suñu suñu mbokk bawol boobu. Euh, voilà tu vois <laughs> tu vois que Malal m'entraîne. non non est-ce que da nga bëggoon ñu waxtaan ci Cissé Lo. non non non pas du tout. je je te promets que c'est pas ça mais en fait man li ma bëgg a wax mooy bi fi PDS yënguwee dama ne euh, à chaque fois ñi nga xamante ni dañuy wax ne dañuy regroupé wu. def parti pour régler problème mu sénégalais yi suñu tollee ci moment boo xamante ni ñun sénégalais ñoo war a régler ji seen problème. finalement dafay xaw a doy waar te parti politique bi ñu koy créé c'est pour régler les problèmes des sénégalais te ñoom ñëpp dafa mel ni fi mu ne ni ñoom ñëpp dañoo nekk ci ci ay difficultés yu métti loolu li ko waral mooy euh, à chaque fois mooy la démocratie interne bi ñuy bi ñuy posé te dafa am solo ndax lu ci bari ni ñuy yore foofu la ñuy yore réew mi. Mm. wala lu ci bari ni ñuy nekkee ci réew mi bu ñu ñëwee ci bopp réew mi mooy ni ñu nekkee woon foofu waaye d'habitude du ñu ko surveiller bu baax. mais Moustapha Cissé Diakhaté Moustapha Diakhaté <laughs> du ñu du ñu fi ñëw du ñu ñëw tey tamit pour défendre ko en mm-hmm. réalité ni pour ni pour contre ko ni pour défendre ni pour charger ko parce que moom aussi assumé na ay responsabilités depuis 2012 à un niveau très très intéressant mm-hmm. tey jii peut-être que bu fekkee ne dafa am leneen lu mu bëgg tey wala leneen lu muy aspirer il va falloir nag rigoureusement ñu Euh, xool bilan bi nga xamante ni def na ko bi mu fa nekkee mhm. lan la fa cautionné lan la fa cautionné wul à partir de quel moment il a été du côté du peuple euh, entre guillemets ce qu'il appelle le peuple et aujourd'hui il est avec qui man c'est c'est la question si mhm. Moustapha Diakhaté aujourd'hui est un échantillon représentatif au niveau de l'APR mooy problème am na mhm. mooy dagg bopp bi nii danga koy dagg waaye ñeneen dañuy judduwaat yaa ngi dégg leneen li aussi mooy su fekkoon ne tey jii tamit il travaille pour quelqu'un wala il travaille pour une ligne ligne boobu moom ñan finalement di nga ko fi jëlee mhm. waaye da ngay nekkaat beneen travail bu gën a métti boobu mooy débusqué nag mhm. kan moo ànd ak moom ku àndul ak moom mhm. ku waxut sax nga ne ko déterminé wul wala nga génn donc finalement nga nekk ci beneen logique boo xamante ni daf ñuy yóbbuwaat avant 2012 li ñu doon xeex naan chef de parti est que war na nekk chef de l'État est-ce que waruñu def le le départ ak ak yeneen ak yeneen donc je pense que aussi li président wane en demandant à ce qu'on l'enlève mooy que bu choix di am par rapport ak ki koy remplacer du parti bi moo koy choisir mais mom moo koy choisir mm. parce que kii parti bi dàqu ko en réalité c'est une c'est la décision du chef mm. alors euh, Pape Pape Djibril dire une dit une situation avant 2012 mais li yàgg na fi PDSR Serigne Diop Sadaxta su Ablaye Wade amoon na fi euh, bu ñu seetee PS tamit euh, ñoom Djiboka yar na ko yàlla yërëm génnoon nañ fi e et plein d'autres donc cheminement histoire Sénégal dafa mel ni Idrissa Seck récemment aussi sorti des flancs du PDS ak euh, bien d'autres. mooy mooy courant mooy courant bi. Mm-hmm. bi Charles di effleurer léegi rek à chaque fois dafay dafay am les mêmes les mêmes choses qui se répètent. Mm-hmm. dafay andi. ñu tegaat euh, problématique égo légitimité mm-hmm. importance apport dans le parti euh, mu ànd ay implosion mais pour s'arrêter sur le sujet pour Moustapha mais je crois que c'est l'une des rares personnes dans ce pays en tout cas acteurs politiques yi mu mës a am xëy na culture courage démission démissionné taxaw ne euh, par rapport à tel avantage wala telle responsabilité je m'en débarrasse je n'en veux plus parce que ce n'est plus en conformité avec mes convictions il a été chef de mission auprès de Wade. Mm-hmm. mu démissionné les gens étaient c'était une nouveauté à la limite ça et je crois que sax fa la jëlee ascension fa la distingué pour dire que ne je peux me départir de ces privilèges il l'a fait beneen bi mooy euh, boo toppee euh, compagnonnage am ak euh, ak président Macky Sall il faut rappeler que le douzième législature bi mais pendant pendant septennat bi yëpp Euh, euh, législature bi moom moo nekkoon euh, président groupe parlementaire. Mm-hmm. bu Benno Bokk Yaakaar boo xam ne leader bi c'est c'est c'est Macky Sall donc il est politiquement comptable de tout ce qui a été fait pendant cette période après ça il se rapproche du président il s'est passé des choses mais boo xoolee dans un passé très récent nga def la chronologie de ses interventions sur toutes les questions qui ont qui sont liées à la politique à l'économie à la liberté à la démocratie il ne s'est jamais tu Moustapha Diakhaté boo seetloo tous les jours il il parlait au au Sénégalais mais pour man lii moo doon finalité bi pour man dafa am li mu bëggoon parce que mënoo nekk aussi dans la logique tu peux pas être dans un parti et que lu parti bi jël orientation wala le la personne morale du parti mm-hmm. acte bu mu posé nga ne du boobu. mais mais c'est vrai Papis tu as raison. Et finalement non. il n'était plus d'accord sur rien du tout. avec ñi mu ñi mu bokk nga froidement nga nga les c'est ce qui s'est passé exactement. Mm. ça veut dire que tous les jours lu Sénégal xam nga du sujet tous les jours il y a un sujet et systématiquement tous les jours Moustapha Diakhaté s'est prononcé et en déphasage avec l'orientation du régime. Mm. pour man c'est une provocation politique intelligente de sa part mu am lu mu bëggoon. Mm. parce que euh, glissement bi